senevision.com wóor la ñuy tëggoo senevision.com kumpa tàggoo nag yéen kii nag gi leen wéy di ñaan ngeen di a ci suñu site bi di senevision.com te bu leen fàttee di bës cloche bi mooy tax mu leen di man di signaler bépp vidéo boo xam ne dugal nañ ko ci site bi ma tawajjoon nasaara laahu liya bi laa ilaha illa ma tawajjoon nasaara laahu liya bi bi laa ilaha illa daanaka mënees naa wax ndokk bi nga xam ne suñu boroomu daa jël jàngale alxuraan def ko fardul kifaaya mooy bu ko am bu amee ñu ko taxawee mu wàcc ñi ci des loolu nag moo waral ñuy jaarale foofu suñuy kàddu di sant euh, sëriñ Modou ak njaboot gi yëpp ci nekkal gi ñu nekkal ñun ñii ci njàngaleem alxuraan yi ndax bu nu ko bàyyi woon ñoom lii dal suñ kaw ñun ñëpp day dal loolu suñ kaw nekkal gi ñu fa nekkal nag moo moo waral mu wàcc ñu ñun ni ko noonu tamit mënees na waxtaanee lii fi sëriñ bi li a wax jàng mooy ay teggin loolu itam amees na ci ab royukaay rawat na ay teggin diggante ak ki nga xam ne moom mooy dox sa diggante suñ suñu borom subhanahu wa ñu nekk ci bés boo xam ne Cheikh Ibrahima Fall la fàttaliku muy koo xam ne <clears throat> ñëpp xam nañ ko ci jox ab dayo wala tolluwaay Cheikhul Khadim na mu toll jéem na fexe ba teg ko foofu yàlla foofu yàlla teg ci jëf ci wax ak ci digle ngir nit ñi nekk foofa kon day mel ni war sa ko dolli ak ñaan ñaan suñu borom tamit mu wàllu nu wala mu taas nu

am nañ Cheikh Ibra ngir dégganteem ak nitu suñu borom ko mel ni Cheikhul Khadim kon daal fi ñuy daanelee suñuy kàddu rek mooy ku ñëw ci jotaayu alxuraan war ngaa bàyyi ne na moom lañuy adduna ak alaaxira ci lépp lu ñuy nar lor kitaabun kitaabun bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa oxra min alkarb kon sëriñ bi moom soññ nañ ci soññ nañu ci ci alxuraan bu baax a baax kon dañuy jeexale rek alayhi salaamullahi ma daama mustafa wa ma layyana al mawla bihi asaab asaabi asalaamaaleykum wa rahmatullah الراكعون الصاجدون الآمرون بالمعروف والناهون والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربه ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليدل قوما بعد إذ هديهم حتى حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولي ولا رشيد صدق الله العظيم barakallahu sëriñ Modou Diagne masha Allah njàng mi wér na sell na ñaan sama borom barkeel alquran ji te wéeral baat bi ni ma ko waxee woon rek ku dégg seen njàng mi seeni sëriñ daara sonn na ci ñoom def nañ seeni suba ak seeni ngoon seeni marax seeni njël ci ñoom ku dégg tara bi nag xam ko ci alxuraan ju wér ji alxuraan ju rafet ji xon na yeeg mam dood yeeg yëpp ñëw ak iddoxaam yi yëpp ñëw kon ñoo ngi ñaan saa borom barkeel alxuraan ji mu njàng ci alxuraan ji nag aaya boo xamante nii dafa mel ni li suñ xaarim doon wax léegi ci way juru xale yi ak ñiy jàngale moom la ubbee muy inna allaha astara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yàlla sama borom dafa jënd ci ñi ñi gëm li ñu jaaye jaayee àjjana mooy seen bakkan ak seen alal seen bakkan ak seen alal yuqaatiluuna fi sabilillah di xeex ci yoonu yàlla bu loole amatul nag xeex ci yoonu yàlla bu amatul da ngay xeexee sa alal ci yoonu yàlla ndax sëriñ bi danaa danaa wax ni képp koo xamante ni ku la dàq joxe rek xamal ni bu ngeen xeexoon moo lay man moo dellu wax ne barixtabir min nafsikal adaaba wala tutaaliban bihi asxaaba na ngay xool war ci teggin nga di ko def te bul xool lu war keneen te def ko ndax wa an laysa lil insaani illa ma saay wa anna saayahu moo dellu wax ne taaddabu fi alani wa sirri maa al ali wa xalqihi bil birri na ngeen xam na ngeen ami teggin ci ak ci lu nëbb seen digganteeg seen borom ak seeni morom moo dellu wax ne jamaalukum ilmun wa saayun wa adab falaazimuha yu ankumul wadab na ngeen xam ne seenu taar dëgg mooy xam bu ànd ak jëfe ànd ak teggin ban mbokk yi dafa am ay laaj yuñ bëgg a laaj ci maam Cheikh Ibrahima Fall kon sëriñ maam Sey Thiaw ñu lay laaj kan mooy maam Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf Fall maam Cheikh Ibrahima Fall jëmm la joo xam ne neexut a wax mooy kan waaye dinaa andi lenn ci ay cosaanam ak jaar-jaaram mi ngi gane ci dëkk buñ naan Njabi Fall am ñu wax turi Atumaan Fall ci rason bu Louga ci atum 1855 ci hijriya jërëjëf Serigne Maam Cheikh kon maa ngi lay laajaat ba tey maam Cheikh Ibrahima Fall ñan ñooy ay waajura ak ñan la bokkal ay waajur waajuram wu góor mi ngi tudd ma Ahmadou Roqee Fall waajuram wu jigéen mi ngi tudd soxna maam Saynabu Njaay maam Cheikh ak maam Salihu Fall ñoo bokk waajuru góor ak wu jigéen mook soxna Astu Jóob ñoo bokk soxna maam Saynabu Njaay jërëjëf Serigne maam Cheikh kon ma lay laajaat ba tey maam Cheikh Ibrahima Fall am njàngam ak lenn ci jikkoom. maam Cheikh Ibrahima Fall ku teel a mokkal alquran la lool watu mbooleem fànni xam-xam yi nekkoon ku sàmm lool jub lool. maandu lool ragal yàlla lool mus la jaar si yëfi ndaw fonk ay waajuram lool kon may tëjee samay kàddu la bindkat ba waxoon ni fa tasabbahu in lam takunu mislahum inna tasabbaha bi rijaali falaahu loolu mooy na nuru nuru lu bu ngeen melul ni ñoomit nuru nuru gaaya دنا تخاتخي والسلام على من اتبع الهدى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه سرا لكم بل هو غير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه زن المؤمنون والمؤمنات زن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا ولا لمسكم فيما أفدتم فيه عذاب عظيم أتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيدا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين مقرنين دعوا هنالك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة القدس التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومثيرا لهم فيها ما يشاءون كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول أأنت أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل الله سرين حبيب jaam njàng mi na matale na te mokk na lool barakallah ndax ku dégg saaro yim tari ak saaro yi ni li naaru ngay ci tàmbalekaay bi te loola bim dikkee taxawu ci tara bi tara bu rafet li naa nakk-nakkal wala taxaw wala runge walla gàkk amu ci dara kon ku dégg tara bi xam ne njàng mi mokk na wéer na comme la ma waxoon rek kon daal résultat yi gis ci daara ji li ñu jot a ko wane ko su xam na ne daara ji daara ju njàng mi dox la njàng mi yar bi it noonu la doxee ndax bu nee daaree maam Cheikh moom kenn ko ne xam ne xamoon du ñuy wax waaye ab yar luñ ko wax kon ñoo ngi ñaanal sëriñ sëriñ daara yi yéen taxawu ak ñi nga xam ne ñoo jàpp ci xale yi di ñaanal sama borom defal leen ci aw jiwu lépp luñ bëgg liggéey ci daara ji rek sama borom defal leen ci tawféex ci barkeb alxuraanu karim bismillah jërëjëf sëriñ Abdou Niang mi yoroon taxawaay microcentral bi ngir mën a jox tu tànk ñu jàng alquraanul karim waaye waxtaan leen ci xikmatu sayqi waxtaanal ñu asiratu maam Cheikh Ibrahima Fall waxtaanal ñu diggante Serigne Touba ak alquraan mu mel ni mbooloo mi teew ñëpp dégg nañ ci bu baax njariñ ak résultat boo xam ne daara ji moo ngi koy taxawee ñoo ngi ñaanal Serigne Modou Fall mi fi nekk ak Serigne Bassirou faal ak mboolem ñi leen di jàppale ci liggéey bi sunu borom yokkal leen ci ndam ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall. ba li ñu yéene ci tutànk yi muy alxuraanu karim yàlla defal leen ko ci jàppande ndax alxuraan kat Serigne tubaa wax na ni maay maay boroom maa ko moom te loolu jamono ñëw na ba firi kenn ko ne xam na ni alali Serigne bi la ndax lim ci jëf la jiitu woon kenn mësta dégg wala nga gis ku ko ci jëf. te la ca të tën ñi nga xam ni ñooy kaang fóori yi moo ko leeral lu mel ni lim doon wax ni alif laam mim mboolem ñi daan firi alquran ca bu njëkk bu ñu masaani egsi ca baat yooyu dan naan wallahu ahlamu bi muraadihi yàlla moo xam lim ci namm waaye seexul xaddiim mi yàlla xamal alquran moom dafa wax ni alif gi kat sun borom moo ni ko aw rastukal kitaab donduloo la téere bi laam gi sun borom ni ko laqantukal kitaab sanaa la téere bi ak maxnaay téere yi téere bi miim gi mu ni ko malaktukal kitaab kon nu nit di jotee ci alal noonu la ko sun borom joxe alquran mu mel ni jamono jiñ toll kenn ku ne gis naa musaabaxatul quraan yi yi am ci réew mi ak bitim réew ah, ndam li ci waa Tuubaa am ñuy sargal soxna Ndata Siise mi nga xam ni kenn ku ne gis na ni fan yi dem naa ba Dubaay jël fa concours alquran bi gën a mag xam ni juróom fukki réew ñoo ko bokk réew yu mag yoo xam ni seen population ñooy ëpp Sénégal ñoo ñu ëpp ay moyen ci taxawaay waaye bu ñu fa demee euh, bu Sénégal yóbboo seen i doom bu ñu demee dañuy jël ay ndam yoo xamante si nii adduna bépp dañ koy gis. ca njaboot googu nag ñoo ngi bokk ci njabootu Seexul Xadiim bàyyi ko Touba gii at yëpp kenn ku ne gis na ni saa bu ñu yëkkatee raayab alquran njabootu sëñ Tuubaa yëkkati loola. te kon nag sëriñ moo ne woon bustaani kitaabullahi te waxan na itam ni ah, alquran kat mooy ah, kontam mooy tarisooram mooy ndambam ah, waaye lépp loo xamante si nii mooy alal wala xaalis ak wurus loolu nekku sama yitte waxan na itam liggéeyal alquran ak hadis yu bi sallallahu képp ku may donn ci loolee nga may donn waxa ni képp koo xam ne takk nga sa nit sa ndigg taxaw ci liggéeyal alxuraan sunu borom dana la musal ci àdduna waaye ëllëg yowmal xiyaam bu nit ña tiitee dana la musal fa man yuddim xasda wajhallaahi xidmatahu fa innahu laa yulaaqi naara wal alama Sëriñ Tuubaa kon lim jëf ci alxuraan kenn mënu koo xam kon mooy borom alxuraanul karim kissa bu gàtt bu ñu ciy nettali wax nañ ni mag ñi nga xam ni xamal nan bëggug sëriñ bi ci alxuraan fun masaana toll dañuy bind alxuraan di ko yët sëriñ bi te buñ ko masaana yët sëriñ bi sëriñ bi defal leen ci teraanga joo xam ni nit mën naa bay ay naweti nawet te du ko am. sëriñ Ndiass Cissé mi nga xam ne mooy waajuru sëriñ Mor Mbaye Cissé dëkk Njaareem wax nan ni jamono jooju bind na alxuraan ca la ko jiitu dafa ñëw ci ku baax ki laaj ko noo def ak téere bi mu ne ko mbakke xanaa man ko lool ba yaakaar ne ku dul man maa la ko dàq. ci sering ko sëriñ bi xamal ni ko waxtu sàngam na nga wax ma la bi mu alif lam mim sering bi di ko déglu mu tari alquran ba set mu man nga ko lool waaye man ahmadu mii maay borom daan ni ko boo mag def ak alquran mu ne man de moo yor sama ker moo yor sama dundu damay bind téere bi saa bu ma ko bindee ba mu sotti ma wecceeku ko ñetti dërëm yi jënd ci ab bala moo jeex ma bindaat téere bi sëriñ bi ko demal nga bindal ma ci nga indil ma nee na mu bind ab téere bu mucc ayib bu rafet ñëw yët ko ku baax ki sëriñ bi daal di bind ab leetar boole kook moom ni ko fire yi kan moo la ci gën a jige mu ne ko sëriñ sàmba Diop Sam mu ne ko jëlal leetar bi ak kaamil bii nga bind boo demee nga joxal ma ko nee na mu jël leetar bi ak kaamil bi jox ko sëriñ sàmba Diop Sam bi mu ñëwee mu xool sëriñ bi bind ni ko teralal ma mbind mi mu téye ko fa di ko defal ay teraanga ba fan yam ko fa téye ba mat mu yëkkati juróomi téeméeri dërëmi du jox ko ko mu nar dem bàyyi fi kayen mu ne ko jëlal kaay bi nga wéb seriñ Serigne Touba mi doy na ma sëkk bi mu ñëwee di ko nees Serigne Touba ni ko lépp xam naa ko waaye dama la doon wan man mii maay borom kon Serigne Touba mooy borom alquranu karim kon nag bu ñu taxawelee fii ci dëkkam bi nga xam ni naalam bi mu fi njëkk a naal mooy jàng alquran ak di ko jàngale sëriñ bi wax na ko léegi mbaar mii ñu nekkan mooy daaru Halimul Xabir ah, daari sëñ daam Abdourahman ji nga xam ne Serigne Touba daf koo féetaloo woon muy jàngal alquran jël maam Cheikh Ibrahima Fall mii ak Serigne Mandoumbe di leen sant ñuy liggéey liggéey bu jëm ca ñay jàngale alquran lépp luñ liggéey seeni addiyee ñu jëm dundalee ko ñuy jàng alquran. ba tàmbali njàng mi fi mu ne nii ñi ngi fi am ci ay élèves ay dongay daara lu limu lu toll ak juróom benn fukki ci ay dongay daara am na ñaari sëñ daara yu fi nekk di di jàngal. am na it koo xam ne moo fi nekk di saytu seen kaaraange fexe nañ ba daara ji it du ñu yalwaani mboolem lu ñuy xewloo ci biir daara ji lay jóge ñun ñoo koy dajale ak mbokki bi yi nga xam ne ñu ngi ci quartier bi te mën jàpp ci daara ji ñu ci jàpp kon daara ji noonu la tëddee ñu koy ñuy wax ne nag daara yi maam Cheikh la da liggéeyal sëñ Touba ak Cheikh bi rek moo ñu liggéey ñu ngi ciy tàllal loxo ñëpp ñëpp jàpp ci te xam ne lépp lu fi waay def rek yaakaar nañ ne da nga dajee ngërëmul yàlla ci loole kon daara ji sëriñ Muntaxa nag bi mu àggee yit dem nañ fa leeral ko ginnaaw moo tegoon xeer wi mu wax ne joxe na ndigal ci daara ji waaye nañ ko def banqaas ci université bu mag bi muy liggéey ba képp ko fa mokkale alxuraan ñu jël la yóbbu la ci université bi nga àggale sam njàng kon nag ci loolu lañu nekk ñu daara ji kon ñu jàpp ne gone gu fi mokkal alxuraan dañ la yóbbu ci université ba boo dee jàng métier nga jàng fa métier boo dee continuer njàngum université nga jàng fa boo dee jàng majlis nga jàng fa waaye lii jéego bu njëkk la boo xam ne ci loolu lañ nekk ñu ngi ciy def nag suñ kem kàttan waaye ñu ngi ciy woo mboolem taalibe yëpp mboolem murit yëpp ñu jàpp ci daara ji te xam ne ndigalul Serigne Touba liggéeyu Cheikh Ibrahima Fall la te lu ci waay defit yàlla dana la ko fay foofu lañ ñuy loolu lañ doon jàll ngir xamle ko ci daara ji gannaaw bi nag ñu jox Eh, kàddu gi ki nga xam ne mooy jëwriñu daayira Jazbul Murid mooy sëñ Modou Fall moom it muy jàmbaar lool guddi ak bëccëg suba ngoon lépp mi ngi sonn ngir nu daara ji gën a jëme mën a jëme kanam ngir lu ñu mi gën a mën a jàpp la liggéeyal sëñ maam Cheikh seen maam Cheikh Ibrahima ñu ngi lay nuyu yéen di leen siyaare bu baax a baax ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne jëmale ngeen ko ci alxuraanul karim muy téré sunu borom bi nga xamné yalla suñu borom moko wacce ki ci ki ki ci mustafa alayhi salam muy alal Seexul khadim barab bi ngeen nek wala barab bi ñu nek ñok alquran ño bokk borom ndax mam Cheikh ak alquran ño bokk borom ndax sëñ Tuubaa moko mom ndax yalla moko may ci anam yi ñu ko wara may maye yi ko wara a yépp amé ci kon lool du jar ñu ci def ay yaatal waye ku dégg xam nga né anam yi mu war a amee alxuraan ne di sant bu baax a baax a baax nag suñu mbokki taalibe yi nga xam ne uh, waxtu wu nekk ñi ngi ñëw ci daara ji di saytu xale yi di leen jubbanti di leen teg ci yoon ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax ñiy fóotal gone yi suñ ci dee soxna Awa Fall ñoom ak sëñ Baye Daaru yaakaar naa mën naa yóbbaale mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi ci quartier bi ñépp rek di leen jaajëfal ak ñi nga xam ne waxtu wu nekk ñi ngi sonn ci daara ji ak ci xalé yi ak ci lepp lo xamni ni day jëmele liggéey bi kanam ñom ñoo ñepp tamit ñi ngi leen di sant bu baaxa baaxa baax di sant kuréel yi nga xamne tamit ñi ngi ñew ci bis bi muy kurelu señ làmp ñi ngi leen di sant bu baax eh, ak mbolem ñi ngeen andal waxtu wu nek bu ñewé ngeen bayyi yitt yépp jóge Daaru marnan ñew japp ci liggéey bi nga xamne mom lañ bokk muy liggéeyu mam Cheikh di sant bu baax kuréel gi nga xamne ñoy sam ci soxna Awa Fall ñoom ak mboolem daayira yi àndal ñoom it ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax xam naa dañ dul mën a mën a matal wala ñu lim ba yeggal waaye buñ nee ñëpp rek yaakaar naa ñu ci ëpp dugg nañ ci biir. ñëpp dañuy yóbbaale ñëpp rek ak euh, sëñ Baye Sylla mi nga xam ne mi ngi saytu xale yi moom it ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci taxawaay bi. di sant euh, gone yi di sant woy juru ndongo yi ñoom wax dëgg yàllam bu bu buñ demee ba nga xam ne ñi ngi wax daara day mel ne way juru ndongo yi ñoo tax waaye buñ dee wax daara tamit sëñ daara yi tamit ci lañ bokk ndax way juru ndongo yi ñoo gis ne alxuraan moom mooy li nga xam ne mënut ñàkk ci doomu aadama ñu yëkkati seen doom indi ko ci daara ji kon nag way juru ndongo yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax waaye nag noonu rek la war a mën a demee ndax alxuraan moom ku yóbbu sa doom mu jàng ko waxuma la njariñ lim lay amal waaye téye gim lay téye taat bi sawar rek jar na ko ndax sëñ bi wax na ko ci masaalikul jinaan saaxir ba wax ne ku am sa doom mu jàng mokkal alxuraan du dem sawara moom ci barkeb alxuraan ak woy juram ya tax mu jàngi alxuraan ak it ka tax mu fer ba ijji alxuraan lii jar na jug te jar na jàngi alxuraan na ngeen taxaw te sampi alxuraan fo meuna jëm ba tax nga eh, fo meuna jëm ba tax nga dëddu alquran du taxafex lay taxafex moy alquran ndax Serigne Touba neena ci tag alquran lañ ko falé mu gàddu mbootum alxuraan daana saxoo durus di jang alquran fekk ña reer mu gindi len ci alquran ku am tawat mu ñaan ci barke alquran tawat jeber tawat ja da donu mbotum alquran kon tank len ta as ci geejji alquran ndax geejji geejji deug modi alquran moo ku am sa dom te jangalo ko alquran naroo mu rëcc rëcc moo di alxuraan yaakaar naa lañ ca wax bari na lool ci alxuraanu karim kon nag ñu ngi leen di sant bu baax a baax di jaajëfal borom barab bii di maam Cheikh Ibrahima Fall ndax bu ñu waxtaanee alxuraan waxtaanee Serigne Touba waxtaanee nañ maam Cheikh Ibrahima Fall kon maam Cheikh Ibrahima Fall mooy borom barab bii te mooy ki nga xam ne bis bii nga xam ne mooy bis bi la ko Serigne Touba gërëmee woon bis bii yaakaar naa bari na ñoo xam ne ni amuñu ko waaye nag ñëpp ko am ndax Cheikh Ibrahima mooy alali ñëpp. li ñëpp nag ku ne am nga cëb cër moo tax ñëpp taxaw di ko màggal muy bis bi ko Serigne Touba ne jërëjëf Cheikh Ibra nag mooy koo xam ne nii mënee su koo xam comme ni ko xale yi waxee léegi waaye koo xam ne bi ngay ànd ak Serigne Touba booba sunu borom bindagul sunu maam aadama waxuma di bind doomu aadama loolu yàgg na te sëñ Moussa Ka moo ñu ko leeral foofu lañ cey daanele mu ne ma wax la as lëf ci mbooti jébbulu Cheikh Ibra Fall moo ma ko wax moo sébbulu Cheikh Ibra Fall moo ma ne Moussa ma ne ko Fall mu ne ma seenub jant taxul nga di ko laal bari na kuy toog suñ Bamba toog nga di ko xool mu di la xool te yow gisoo ko maa ko xool jébbalu naa baatin ba mooy sébbalu naa jébbalu naa baatin ba mooy sébbalu naa baykat yi xam nañ li may wax jébbalu naa baatin ba mooy sébbalu naa li wax suñ Moussa Ka la jébbalu naa baatin ba mooy sébbalu naa bis bu tawee bul jekki naan noppalu naa alaaxiraa di noor nawet mooy lolli góor gu bayul du mën a am lu lum jàlle suñ Moussa Ka daal di wax ne ma dellu wax la waxi Cheikh Ibra Fall ci diggam ak Cheikh bàmba mooy borom àll nee na ma roog a gëm na Cheikh yi Bamba lu mat junniy at wóor na yàlla buur ba te booba yàlla bindagul sunu maam aadama sakkantumaak di bind sax doomu aadama kon xam naa foofu la ñuy daane sunuy kàddu di sant bu baax di ñaan ñu fekke ko ay déwén yu baree baree baree bari te tal ko di sant waa waañ wi soxna yi jàpp ci waañ wi ñëpp ñu ngi leen di sant ak ñi jàpp ci liggéey bi muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ñu ngi leen di sant bu baax te di leen ñaanal ñu fekk ay déwén yu baree bari te tal ko te kenn bañ cee manqué ci barke murit bu mag ba asalaamaaleykum wa rahmatullah senevision.com wóor la ñuy tëggoo senevision.com kumpa tàggoo nag yéen kii nag di leen wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision.com te bu leen fàttee di bës cloche bi mooy tax mu leen di man di signaler bépp vidéo boo xam ne dugal nañ ko ci site bi